asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér soxna Bali Mbacke moom soxna maam Fati Dendey moom soxna Momi moom sëriñ Touba Xaadimu Rasul mooy am mbégte di leen yëgal daaray alquranul karim daaray alquranul karim ju ñu duppee maamam soxna Fat Sila Libaas muy daaray interna nekk ca Madiana 6 soxna Bali di leen xamal ne ku bëgg sa doom jàng alquran ba mokkal ko ba noppi ànd ak yarub diine dawal ñëw ci daara internat Soxna Fatou Sylla Libaas numéro téléphone bi 77 la 238 37 64 77 238 37 64 inscription yi nag tàmbali na gaaw leen balaa daara jaa fees muy daara alquran Soxna Fatou Sylla Libaas di daara internat jàng alquranul karim mokkal ko yaru yarub dine daw leen bu leen ko kenn nettali ma nga amee rek ca daara yi soxna Fat Sele Libaas ci njiitul soxna Bali moom soxna maam Fati Dendey moom soxna moom i moom Serigne Touba Xaadim Rasul mbokk yi jàng alquran ba mokkal ko di ko jàngale am yarub diina ba noppi di ko yare ma nga fekk baax ca daara yi soxna Fat Sele Libaas bu leen ko kenn nettali gaaw leen doom ñu mokkal alquranul karim ci dëkkub Serigne Touba Xaadim Rasul wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.